al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak di téye ci islam salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk daara ji maa ngi nuyoo tey ziar di ko tekki loxol sëriñ xaadim ak sëriñ xamaan yal na yàlla nangu ñaan yi te yal na ko yàlla boole mbokk mi laaj nee na boot gone ci kanam luy attam ci lislaam boot ci kanam ak ci ginnaaw ñoo yam bu ci nekk xëy na aaday ñenn la li am solo daal mooy bu mu doon loo xam ne lor da cee nekk ñeel gone gi wala ki koy boot fi loolu rek anam buñ ko defee mën naa nekk wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne day dem bitim réew di jënd marchandise am nag benn client ñu ne ko marchandise na moom client am na mu jëndaaleel la bu ñëwee nag day teg bénéfice ci la mu koy jaayaatee la mu koy jaayee ñu lay ateg loolu ak fekkee ne mu jëndal ko mu fay ko nga xam ne liggéey bi mu ko defal indil ko marchandise ma jëlee ko ci dëkk bu wandi ko da ko caa fay wala mu neexal ko ci lañ ci ndax liggéey la bu ko liggéey loo li daal mooy mu moom xam ne amugul marchandise mi waaye waxaale nit ci prix te amugul marchandise mi waaw dañ koy tere moom ci lu mel nii amugul marchandise mi waxaale moom nga xam ne loola mën naa dem fekk ko mën naa dem bañ koo fekk mel ni marchandise sàngam la bëgg daal ñu juboo ci mu jox ko xaalis moom mu door dem na di ko wuti loolu jaay loo xam ne jamono yi ñu koy jaay fi yow dañ koy tere anam yi ñu koy daganal bu ko tëyee ci buntu salam lañ ko daganal te day wuuteeg loolu yi wallahu taala alam mbokk mi laaj na sëfër boo xam ne dañ koo jël di ko fay weer ne ko it nag saa tukki dañ la jox frais de weer nangam mu ne frais de voyage yooyu nag buñ ko ko joxee mu dem tukki mu del si mu des ndax da koy delloo si mi ngi aju ci lam ci déggoo ka koy liggéeyloo bu ne lii mooy sa frais de yoon wi yaa yaa ko su boobu moom bu sakkanalee wala mu dem lam soxlaa mu fekk ci lu ko ne lu yées loola la gis ma ko moom bu nag ab li mu ngi nii de nang ci faj say soxla ba dellusiwaat su boobaa bu lu mu des da ko war a delloosi ñaar yu bokkul kon kiy joxe mooy wax ne ko lii kat yaa ko moom moom bu fekkee ne doy nag bu doyut yàlla mooy li nga xam ne moom lay jox ngir sa tukki bi su boobaa nag kooka bu ko jariñoo fekkee soxlaam mu des la mu des moo ko moom su manqué it ci kaw lañ dal fekkoon nag da ko jox ab lim rek boo xam ne xaalis bu xaw bari ne ko nag day ci faj day ci def say fere del si waat nga xam ne day wan ne ko li bu desee da koy delloo si boobaa bu desee da ko war delloo si kon ñoom ñaar ñi jëflante ñoo war a wax lu leer ci des wi bu des amee fu ku koy moom wallahu taala alam mbokk mi laaj koo xam ne soxnaam day nàmpal nee na mu bëgg a barkeelu meew ma ndax bu ko nàmpee ba naan meew dana am jeexital ci nàmpal gi lislaam di wax muy am jeexital ci ab sëy gi ne demee mooy gone gu toll ci nàmp nga xam ne feegut amagul ñaari at soow ma di jeexital ci moom kooku lañ wax ne ku ko nàmpal ku ne yaayam boroom këru ki ko nàmpal bàyyi ko wala mu weesu nàmp ku ko mën a nàmpal tey doom jeexit kon boroom kër ku nàmp weenu soxnaam ba meew te meew ba naan te meew ma it amul jeexital ci yenu sëy donte nag meew mi nga xam ne gone gu ndaw goo xam ne ab dundama ci aju mag mi am lu mu dundee bàyyi ko fa di naan meew jamono moom loolu moom du lu ñu tàmm wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am bori julli te matul juróom nee mu fekk mbooloo mu julli nee na mu ànd ak ñoom ci biir julli ga ilimaan wu wutal ko joxe na nga am am mu àggale julleem kooku luy àtteem waaw kii amee bori julli yu matul juróom nde warutoon dugg ca mbooloo ma di julli te fayut ay julleem ba noppi loolu waru kon njuumteeg lu jiitu mooy ñëw dugg ca mbooloo ma te amee bori julli daa war a fay bu noppee nag dab si mbooloo ma lu mu am ca julli ko ànd ca buñ sëlmale mottali buñ sëlmale bu noppee mu julli julli boobu bu julli gi nag ilimaan wuutal ko mu àggale julli ga dañuy xool julli gi lan la bu dee diggante tisbaar takkusaan la maanaam takkusaan lañ doon julli te moom julliwut tisbaar waaw julleen baaxut ku mu jiite du baax bu fekkee du yooyu nag nga xam ne du julli yu bokk waxtu masalan timis lañ doon julli moom mu amee baru tàkkusaan ak tisbaar ak suba yi ko jiitu masalan kooku bu jullee julli ga baax na waaye nag am na bàkkaar ci e, bàyyi fi farata bàyyi fi bor yi di njëkk a julli julli gi teew loolu bàkkaar la bàkkaar la ci am moom moom mi bàyyi bor yi di di julli julli gi teew dañuy sopp mu fay bor bu noppee dañoo daa war a fay bor bu noppee sopp nañ mu baa mu waat julli gi mu julli woon waaye kum ci jiite mu julli gi baax na ndax moom julleem baax na bu fekkee ne du ñaari julli yu bokk waxtu du ñaari julli yu bokk waxtu waaye bu dee tisbaar takkusaan la wala timis ak gee ñuy julli gee te moom jullee ko julli ga du baax te ko mu ko jiite du baax wallahu taala alam mbokk mi la nee koo xam ne ilimaan da koo rawe xëy na julli ñeenti rakka la mu ànd ak ilimaan ñaar rakka yu mujj waaye ilimaan nag da doon sujjoot nee na ba'da salaam ndax day ànd ak ilimaan door a jóg fay li ko defee wala déet waaw ilimaan day bu dee sujjoot ba'da salaam koo xam ne da ngaa ci moom te sa julli matagut te julli la rawoon buy sujjoot ba'da salaam du ànd ak moom kooku fu ilimaan ji sëlmale rek yow da ngay jóg sa julli. waaye nag boo jullee ba sëlmal ñaari sujjóot yooyu da nga ko fay da nga koy boo boo noppee da nga koy sujjóot bu doon xabla salaam nag nga xam ne ilimaan da koy sujjóot njëkk muy sëlmal moom da ngay ànd ak moom sujjóot bu sël bu sëlmal nga jóg nag fay la la fay waaye bu dee ba'da moom bu ilimaan sëlmalee julli ko jeex na yow da ngay jóg fay sa rakkaa yi la defee boo sëlmalee nag fay ñaari rakk ñaari sujjóot yi nga xam ne mooy ba'da salaam bi wallahu taala alam mbokk mi la nee na am xar buñ ko rendi woon ci anam gu dëppoog lislaam waaye nag buñ noppee feesuñ ko nee gis ñu koy def feesuñ ko dañuy jël daal loo xam ne dañ ko ci wésam rek noonu waaw dara wi bu fekkee ne lor nekku ci kon lekk ko du wàññi dara kon nekku ne faw dañ ko war a fees ku mën fexe ba jariñoo ko te doo ko fees loolu dara nekku ci danga fexe ba dindi kawar ga moo da nga koy wat moo xam da koy wisam moo xam da nga koy def daal ba dindi kawar ga ngir jot ci yàpp wa loolu dara nekk ci ginnaaw buñ ko ren dara lu ngi dëppoog lislaam wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa joteeg soxnaam te booba soxna si seetut daa gis baax te seetut ba noppi ginnaaw ba mu fase ko luy àtteeg loolu kooku de def na ñaar yu ñu taree def na ñaar yu xaraam jote ak jigéen ci jamono joo xam ne setut ba sangu dafa xaraam dëgganut fase jigéen joo xam ne it dafa toll ci baax dëgganut loolu bu amee te fase mu nekkul fase mu dog fase mu koy forcer mu fay la ko fay la soxna si ndax fase mu am na tabbi na waaye day xaraam da koy dabaatal su ma ne nekk kon am na bàkkaar ci joteeg soxna si ci waxtu mbërëg boo xam ne da ko war a tuub yàlla te bañ ko defati waaye fase soxna ci mbërëg yi daganut te bu dul fase mu dog dañ koy gàtt ci mu euh, jëlaat ndaw si wallahu taala alam mbokk mi laaj nee koo xam ne da doon tarbiyu ab sëriñ lu mat ñaar fukki at ak juróom nee na bi mu dem ci sëriñ ba bëgg mu wutal ko soxna sëriñ ba nungu ko takkal nee na ginnaaw nag nee mu juum ba joteeg so jigéen muy laaj ba xam ndax loolu yoonu sëriñ bi dara ja nekk wala déet moo ne bu dee mu kàllaf la mu ànd ak sagoom bu defee aw ñaawteef ñaawteef moo koy gàddu ndax bakkaaru nit bakkan dee su ko sëf beneen bakkan fekkee moom moo dem euh, jaxasoo koo xam ne wërta jaxasoo moom ndax lislaam daa santaane ku ci mata takk soxna na ko def bu ko aajowoo te am ku ko mënut am na fu mu def loo loolu def loo gën a ngay woor gën a ngay dem musa pat ngir muñ loolu kon li ko lislaam santoon du loolu bu amee nag ku ko war a dimbale te dimbale wu ko ko loolu meneen mbir la ñàkk gi dimbale googu du daganal wala muy yoonal mukk muy dem di ma yàlla wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na luy attab seet ci lislaam lislaam day tere seet seet mooy gisaane mooy tënee yëpp lislaam da koy yonent bi aleyhi salaam nee ku dem ci ab seetkat mu wax la dara nga gëm ko wedd nga la ñu wàcce woon ci moom yonent bi aleyhi salaam wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku carte ba gañe ci ab xaalis ndax xaalis boobu bu ko joxee keneen koo xam ne xam na ne li xaalisu carte la ndax dana dagan ci moom waaw nit ki de bu carte ba am xaalis moom mi carte la xaalis bi arab ci moom xaalis boobu de su ko lakk de su ko gas di suul waaye moom mi ko fàggu nag dëgganul ci moom dëgganul ci njabootam keneen ku mu ko jox nag sañu ko nekk waaye moom mi koy joxe nag du ci yéene maye du ci yéene saraxe du ci yéene addiye lañ ci yéene mooy tàggale ko lu arab ci képp koo xam ne ak bu ko joxee lu lu lu koy daganaal mu wéy di ko def lu mel ni kilifa moom du dagan amaa bu dee keneen nit rek jox ko ko moom kooko sañ na ko lekk ndax moom anam gi mu ko jotee anam ku dagan la moom mi ko fàggoo nag anam gi ko fàggoo dëgërul moo tax mu araam ci moom wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na bu ñuy julli julli mbooloo ci kab rakka bu mujj bi kabar bi nga xam ne moo jiitu sëlmal bi kabar bi ñu mujj kabar bu ñu sujjootee sujjoot bu mujj bi siggi nee na dafa gis ñu bari dañ koy béral muy laaj luy attab loolu waaw li ñu santaane si julli de mooy ilimaan nay bëral ay kabaram ngir ñi muy jiite dégg ko ci def ñépp nañ koy yalu xanaa kuy jottali bu fekkee ne jottali aajo la bu fekkee wala mbooloo mi bari ba mënta àgg na koy jottali bu dul loolu ilimaan bu fekkee li muy wax ñépp nga koy dégg rek doy na waaye ilimaan nay kabar ci kaw ñi ci des ñépp di yalu kabar yi kabar yu yépp nag ba mu des kabaru armal moom dañuy bëgg ilimaan ak maamu ñëpp ñu beral ko naka noonu sëlmal bi nga xam ne moo leen génn ci julli gi waaye ci des yëpp nag maamoom dañoo bëgg ay kàbbaram mu di ko yalu naka noonu kuy julli moom kenn dañoo bëgg ay kàbbaram mu di ko yalu ilimaan rek lañ bëgg muy beral ay kàbbaram ak ku ku koy jottali bu fekkee ne aajo woon a jottali wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa bett soxnaam ak keneen tax mu fase ko nee ndax suñ ko laajee lu tax mu fase ko sañ naa wax ne da ko fekk mu njaaloo ndax loolu kon doon siiwal njaaloo waaw laaj luy tax ñu fase de moom la jàpp ne du du yitteel jàpp ne nit ki gis ni yàlla dogal ñu ànd bu ñu tàggoo yëpp dañ jàpp ne ci dogali borom bi la bokk waaye nanga ma tax ma wàcc ko moom doonut lu wax ni faaw nit ki da ko war a wax kon yàlla dogal na ànd bi yàlla dogal ñu tàggoo ndax lu mën a xew moom suturaal nit it daa bokk li ñu santaane bu defee ñëw tey fii luñ ko mën a suturaal Ibrahima na ku ab julit yàlla suturaal kon te it lu ne ci kanam lu jar leeral moo fi nekkut laxaw mu ñëw ba xëy na ko ci topp wala lijjanti ab ab lijjanti aju ca wala yeneen àtte nag ba fañ ko war a wax ñu wax ko foofu. dara dara nekku ci sa boobu waaye nag bu dee nit ku lay laaj rek lu tax nga fase ko moom nga ne daa mel nangam loolu moom lislaam sa daat ko eh, borom daa waxoon ne wala tansawul fadla baynakum ay nit bu ñu àndee ba tàggoo it mas ñëw séq jàmm jàmm ji waruñ ko fàtte kon loolu mën a tàggale it wari sut ko weer ci mbedd mi moom wallahu taala alam mbokk mi la na ki koy jiite jalaal buy jeexal fatiha di wax warab daalin du ko dëgg te dañ ne nit ki bala ngaa wax amin na la leer ne iliman wax na warab daalin mu ne nag naa mën naa sukkandiku ci ñeen maam yi dégg ñu wax amin mu wax amin waaw li ñu santaane mooy ki ngay déglu njàng mi saa yoo déggee mu wax warab daalin jeexal fatiha nga wax amin li ñu bañ rek mooy nga ne amin ci foo xam ne barabu ñaan xëy na bu sa xel dalay ci ne kii tax mu naan daa dégg moom liman wax na amin su waa ngaa naa moom wax nangu ñaan dara nekku ci waaye boo nekk yàlla it ndax déggoo ko dara nekku ci ndax wax amin lu ñu sopp rek la wallahu la nag kuy jaayante ko ci yoonu murit yan kàddu lay wax lépp lu mu wax luy saxal ne sa kilifteef jël nga ko jox kilifa gi wér na naa ci yow rek jébbanal sax bopp ndax jébbal naa sax bopp ji li tekk dégg dëgg mooy sama bakkan bii soxla ku ko wom ma teete ko laa la jébbal bëgg nga yaral ma ko wom matal ma ko teg ko ci yoon kon jaayant na wax yow jébbalu naa ci yow ak jox naa la sama bopp yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne luñ ca baaxoo wax ci barab booba te muy tekki ne sécurité jël nga ko jox ko mu moom man la ci wàllu yàlla su waxin woo jaayante la yoon wallahu taala alam mbokk mi laaj nee koo xam ne nee na magu yaayam la daa faatu woon booba léegi mën na juróom-ñaari ñu miraasoon ko am nag koo xam ne moo war a teggi ñeneen ñi waaye nee na teggiwu leen boobu ba tey ñu wax nag ne tiri nañ jaay muy laaj ndax loolu day tiri ku ci noonu wala déet waaye li jaadu woon de mooy bu ñu miraase am koo xam ne dañ koy topp alal mu war a teggi ñeneen ñu wax ab délai boo xam ne ca la loola di yem bu délai ba ak fee ñu ñëw topp su ma nee fay baax na su mënta fay te ñee man koo mayaat beneen délai ñu mayaat ko suñ ko mënta mayaat nag ñu tiri jaay ko xool keneen ku mën a jënd wala ñu jaay ko jàmbur kenn ku ñu jox ko a xam loolu mooy li war wallahu taala alam mbokk mi laaj ne daa dañuy wax ne xarum tudd e, deesul toj bopp bi dañ koy wékk noonu muy laaj atteg loolu ci lislaam ci masabu Maalik day am xarum tudd dañuy bëgg sax ci waxi ñenn ñi ñu toj yax ya ngir wóoteeg jaahiliya yi nga xam ne dañ daan wax ne xarum tudd bu ñu tojee yaxee loolu day lor gone gi bëgguñu wuuteeg ñoom moo tax dañuy santaane ñoom sax sopp ñu mën a ñu toj yaxe yi donte nag am na ci yeneen ngir ñuy wax leen waaye ci masab Malik moom euh, dagan na wala sopp nañ sax toj yaxe yi wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne dafa gaañu ci loxo yi ba mënta jàpp ndax xëy na bu laalee ndox mi wéradi gi dana yokku te mënta tiimit ndax bu julli jotee moom day julli noonu rek waaw mënta jàpp mënta tiim day xaw na maa jaaxal ndax xëy na li mu wax ne mënta jàpp ndax day bañ ndox mi bu tooyalee yaram bi wéradi yi gën a yokk loolu nga xam la mën naa nekk waaye tiim moom loolu nekku ci kon lu tee mënta tiim daal leeruma li ci des nit ki su fekkee ne loxo yi rek moo gaañu kooku téew ko mën a jàpp ndax bu jàppee man naa euh, raxas kanam gi mën naa massa bopp bi mën naa yi te wax jàpp nit ki bu fekkee am cir boo xam ne daa bokk ci jàpp yi te mënu koo raxas da koy massa raxas ku mëntu day massa to massa mën naa doon ci kaw góom yi mën naa doon ci kaw bànd bi mën na ko bànd ba noppi massa ci kaw bànd ba su ko defee cër yi nga xam ne dara jotu ci mu raxas ko su ko defee mën a julli julli ko tegu ci yoon ñu kenam ko mëne ndax dañoo sant bi rek yàlla comme ko mëne kon bu mënta raxas cër yëpp it yam man raxas na ko raxas yam mënta raxas mosaa ko su àggoon ci mënu koo laal ngir métit mën na koo tëb waa tuxu ci tiim su fekkee mën naa tiim wala mu boole ñaar yëpp mu raxas li mën a raxas bu noppee tiim loolu nag mu tële yëpp moom jaaxal na moom nu muy amee waaw léegi lu mën a xew bu nit ki àggoon ci mënta jàpp mënta tiim loolu bu amoon koo xam ne mënta jàpp mënta tiim bu baax julli da koy wàcce loolu mooy mazhabu Imaam Malik mooy al mu'tamad nit koo xam ne tey julli daa jot waxtu wi tàbbi ba jeex muxtaar mi ak daru yëpp te mënta jàpp mënta tiim julli bi ko wàcc na ko wallahu taala alam